jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante ne saay su nekk yéen a ñuy saxoo ah, di ñu teewlu di ñu seetaan si seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes tey ñu ànd kook ah, suñu mbokk yi nga xamante ne tamit muy ah, TNM TV ñu ànd ak ñoom tey dalalaat fi kii di Pape Maguette Gueye journaliste Walf Walf TV saay su nekk ngeen miin ko si écran bi nga xamante ne muy écran ASID TV Pape Maguette mbégte la ñu dalal la si ASID TV ak TNM TV. mbégte la sëñ Mbaye euh, man it euh, jokkook àdduna jaare ko ci TNM TV ak ASID TV euh, di leen ziar bu baax a baax a baax euh, namoon nag euh, seeni internet bu baax a baax ndax ASID TV dañoo dem ba bokk ci te xam naa TNM TV noon lay demee insha allahu rabbi mm-hmm. jërëjëf Pa Maguette dañuy fas yéene dabal teg waxtu bi waxtaan ak yow lu jëm si mbirum actualité jamono yi ñu génn gisoon nga li xew si mbirum rapport Cour des comptes mm-hmm. ba tey daanaka dara leeragu si ba jàngat nga si amal waaw jàngat euh, bi ma ci am mbay ci rapport Cour de comptes. ak mhm. ni mu demee ak fi mu toll. mooy jàngat bi ci Sénégal yi bari bari am li ko waral nag mooy dañu nekk ci benn dëkk boo xamante ni dëkk la boo xam ne yoon ak justice dañ koy dañ ko fiy négocier te loolu moom euh, problème la li tax mu nekk problème nag mooy euh, boo fekkente ni dafa am yoo xam ne dañu amee benn pouvoir bu duy wax judiciaire. Euh, ci principe bu séparation di pouvoirs ñooñu bu dee dañu dem def seen jukki def seen lëñbët def seen jàngat ba gisal seen bopp ne dafa am ay malversation dafa am ay luubal yoo xam ne ni dafa am ci benn mbir rawatina nag mu am ci koppar yoo xamante ni dafa amoon ci contexte bu doy waar. Mhm. xam nga contexte boobu ku ci mën a jël alalu askan wi la ñu dajale lekk ko. Mhm. bu ñu ne leen nit nga yow ci sa bopp waroo koo gëm. c'est-à-dire gars yi c'est des ay ay ay cannibales ay cannibales mën nga leen a ay cannibales. Mhm. waaw c'est-à-dire ko xamanteni jom morom doomu adamam teud mu jël euh, pakam rend ko fees ko jël yapam dem fee togg ko di du dara ci mom c'est comme des cannibales parce que dafa tolloon fo xamni Covid sonal nañu askan bi xamuñu fu ñu jëm adduna bi lepp taxaw avion yeeg vol yi dara doxatul ñu ne nan la def ba génn ci loolu joxe ay plan d'urgence nangam nangam réew mi woote parce que le fait que njiitu réew mi woote opposition bi ku ci mel Ousmane Sonko euh, Khalifa Ababacar Sall mais Malick Gakou ñëpp dem seeti ça veut dire que boobu leur était grave ci li nit ñi jàppoon am na ñu jàppoon euh, Covid boobu ay bari woon na ci ay caaxaan bari woon na ci aussi tey juumuñu euh, demoon nañu ba tëj ci ay juma tëj ci ay jàkk def ci lu nekk activité yëpp ñu arrêté ko. Mm-hmm. ngénte sax boo ko bëggee def am sa doom bëgg ko ngénte problème la. Mhm. boo amee sa néew bëgg koo denc ay mbokkam yëpp daje problème la demoon nañ bay xool maanaam bu ñuy robe ji ñaata doomu aadama ñoo ci war a topp. Mhm. demoon nañ ba hôpital visite sax mënatul a nekk. demoon nañ ba eh, takk ay masque yoo xamante ne guddeeg bëccëg moom la ñuy takk ku ci nekk di daw sa morom demoon nañ ba bàyyi joxante loxo. kon xam nga xewoon ci àdduna bi jamono jooju doy na waar. Mhm. ñu mën a foog koppar yi nga xam ne bi mu méttee ba ba doy waar. dañu ko jël dajale ko pour ñu def ko ci loolu faj ko saafara ko menuisiers joxe woon na ci seen koppar mooy artisan yi boo seetloo médecins yi joxe woon na ñoom ci seen jëmmi bopp nga xam ne ñoom ñooy faj ñu bëree bëri bëri amul secteur ba ci transport joxe woon nañu muy syndicat ak a fab xaalis boobu ne dañ koo jël jox ko ay quelques nit ñoo xam ne ñoo ko doon seere am na ci koo xam ne nii góor njiitu réew mi la doon na fi wax sax benn journaliste naan ko boo ma laajaatee nanga ma porté la plainte même Mansour Faye moom fii la toog ñu wax porté na plainte bu yàggul benn activiste boo xam ne fële à Saint-Louis yow koo xamante ne dañ laa fal pour nga war a nekk ci soxlay soxlay askan wi lijjanti ko nekk ci seen mbir te foo toll yaa ngi demalanteeg dikkalante ci yoon est-ce que la tax ñu fal la dëgg-dëgg yaa ngi ci. moom ministre boobu moo fi taxaw wax ni eh, bu ñu ma wooyee pour saytu ma duma dem moom ci boppam wax na ko fi. Mhm. ça veut ko que kooku ci bopp jëm boppam faalewul yoon toppatoowul yoon. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni le ministre Moustapha Diop xam nga kooku moom dañu ñëw di ko euh, auditer si. di ko seet si mu dàq ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñëwoon pour ama liggéey boobu. Mhm. mujjul fenn. dëgg la c'est-à-dire ñi nga xam ne mbir mi ci seen diggante la nekk ñoom ci seen bopp ku ci nekk teg nga acte buy wane ne faale woo yoon wi ne ci réew mi. Mhm. léegi nag yoon boobu bu fekkente ne faale wuñu ko du fët bi du ci ñoom rek maanaam problème bi du ñoom parce que seen njiit ci boppam. moom moo taxaw daal di jël ay quelques personnes yoo xam ne da leen a épinglé ci ay mbir ñu tere leen a génn Sénégal bari woon nañu Abdoulaye Baldé ci la bokkoon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du jeex. ba ñu demee ba loolu am moom ci boppam mu tànn ñan la ciy bàyyi féexal leen ak ñan la ciy décider topp Karim Wade génne nañ ko Sénégal. Mhm. mais loolu ndax tamit yeggul ci justice Sénégal on ñuy wax ku amul ndey ku am na ont mhm. Sénégal. ko Sénégal mhm. euh, justice euh, ki nga muy procureur. mooy njëkk neex tamit demul ba ñi nga ñi opposition bi. justice Sénégal comme amul na waaw kumba amul ndey kumba am ndey boobu yàgg na ci justice bi sax da ci nguuru Macky Sall kase mhm. xëy na nag dafa gën a jéggi dayo dafa gën a doy waar waaye moom ci boppam kumba am ndey kumba amul ndey boobu ñu ciy laaj ak di ko wax moom ci boppam moo ko ci gën a saxal ndax fii la Alioune Ndao taxaw daal ne sàll ci boppam moo ma wax ne ma naa bàyyi Ablaye Baldé xam nga moom moo ko wax Alioune euh, alindaw Ndao mi ko wax procureur Alioune Ndao mi ngi fii tuxuwul génnul Sénégal Ali Ndaw nan la mën a waxee loolu ba pare ñu toog di ko seetaan bu fekkente ne li mu wax du dëgg wala da koo sos wala da ko créé te yaakaaruma ko te lu mel noonu du loo xam ne nit dina ko créé parce que loolu garaw na ko njiitu réew mi yóbbu ñu topp ko kon njiitu réew moomu bu demee ci ku Ali Ndaw ne na bàyyi diw te boobu mooy bi ñu dégg mooy bi fés waaye li vérité wóor mooy am na ñu bëree bëri ñoo xam ne moo leen bàyyiwu am na ñu bëri ñoo xam ne moo leen toppalu da ngay seet tey lu mel ne lii ñuy wax ay affaire man bëgguma ñëwaat ci loolu parce que débat la ne war nañ ko dépasser fi mu toll. waaye ñu parce que fii la ñu bëgg nekk am ko diw indi ko am ko indi ko man j'avais dit bu ay at ci ginnaaw que ni bëgg dema dema mois de mars jàpp avril diggante boobu léegi sax poussé ko février. février ñu bëgg procès ay nangam nangam ba jël ñi nga ne ñoo war def mbir mi ñoo pour rek jël affaire bi par la force top ko yóbbu ko ci yoon ci affaire bo xamanteni ni wax deug yalla ñepp xam nañ ni euh du lu am bop wala lu am genn wax deug yalla lu ñu waroon mu jël tàbbal kii géegu la jàll ci leneen le Sénégal motax mané le fi la fii dafa yoon dafa nekk instrument bo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo pour di xex ay adversaire politique pour di xex ay doomu aadama di leen yóbbu kasso di leen génne ci langue gi motax kumba am day kumba amul day boobu nga wax Aliou ndaw kaddu googu mu jël nettali ko te njiitu réew mi waxu ko moom fësal na ne Macky Sall moo gën a saxal kumbaam ndey kumbaamu ndey loolu mooy dëgg ndax Ali Ndaw li mu wax Macky Sall weddiwu ko yóbbu ko ci yoon toppuñu ko kon damay jàpp ne li mu wax dëgg la ba keroog may gis lu ko weddi dégg nga ak ñi nga xamante ne bàyyi lu nañ leen te xamuñu kan ak kan ak kan la donc Sénégal yoon bi fi am kumba am ndey kumba amul ndey yàgg na fi mhm. yoon la boo xamante ne opposition bi moo ko tax a jóg ak yenn ci ay ak ay voix vive yi nga xamante ne ñi ngi fi nekk naan wërta mën a demee nii na la war a mën a demee mhm. dengue euh buy xam nga ku mel Assane Diouf ba mu nekkee ba États-Unis di wax ils ont tout fait pour indiwaat ko ci Sénégal. Mhm. donc yoon bo boo lu way sori sori sori sori buy critiquer njiitu réew Macky Sall dañ leen jaral ju bolé li ñu am ci instrument yépp pour fekk la fa nga nekk xati la indi le Sénégal. Mhm. dañ leen indi sax indi bo xam amul leen njëriñ. parce que mhm. Assane Diouf mi ngi fi amul leen fi ben njëriñ. mais euh pour dire ci ci rapport Cour des comptes bi. rapport boobu euh, moy li nga xamante ne li nga rapport Cour des comptes affaire Aliou Sall. affaire Prodac yooyu dafa nekk ay mbir yoo xamante ne daray àdduna warta mën a tax Sénégal xoole ba ñu teg ko ci suuf. Mhm. loolu dañu ko war a mën a topp. ak nuñ ko mën a toppee c'est-à-dire loolu ku ci demoon ba dugg ci ron lalu ron lalu Macky Sall sax dañ dafa war a fekk lu xati la topp ko. Mhm. muy ku laal ci Prodac muy ku laal ci affaire euh, dégg nga Aliou Sall mais affaire euh, euh, nu mu tudd affaire kii kii boobu rek da ngay déglu parfois ku mel ne Clédor mais bu ci wax sax sa yaram day daw. Mhm. ñu bëgg koo tàbbal géej parce que def ci benn non-lieu parce que rakku njiitu réew mi la affaire am nañ ko ba yàgg ñu def ay appel à témoin mhm. euh, Clédor Sène wax na ko ñëpp di dégg man wax na ma ko ay yoon yoon wax na ko ñëpp que moom bi ñu wootee sax appel à témoin foog na ab saagam def ci lu mu amoon ci document yóbbu ko ci yoon pour wan leen ko waaye bi mu demee dañ ko xamal ne ko fii appel à témoin bi lu ñu wax nii la rek waaye amagul benn dossier bu ñu fi indil pour ñu war a mën a recevoir yu demee noonu. Mm-hmm. mais Pape Maguette dégg nañ si euh, biir waa rapport cour des comptes bi. kii mm-hmm. di nga xamante ne mooy ministre de la justice ñu koy wax Ismaïla Madior. mu yëkkati ay kàddu ñi nga xam ne dañ leen siy topp ay autorités yi mag lañ si état bi ay ministre lañ du ñu tëb rek procureur autosaisir si mbir mi. waaw waa léegi ñi ñu ciy topp dañu nekk ay ministres yu mag a mag a mag ci réew mi ñoo xam kilifa yi lu ñu doon te sax loolu mu wax demeewul nii parce que ay daas ñoo ci ëpp. rapport yi moom lu ci bëri bëri ay daas la wane te rapport bi sax lu ci bëri ñu ngi wax ci benn waay bu ñu yónni chaque jour muy récupérer cent mille cent millions affaire yooyu loolu tuuti la ci. parce que rapport boo xam ne cent quatre vingt quelques pages la loolu benn la ci rek c' est a doy waar ci rapport bi. mooy retard yi am ci marché yi. parce que marché yu bëri bëri bëri bëri bëri dafa am ay retard yoo xam ne ay plus de cent et quelques jours affaire yu garaaw mhm. ay koppar yoo xam ne dem nañ ci ay dëkk daal ni séddale nañ fa temps rapport bi évoluer. seet xam ne carrément la ñu waxoon demeewul noonu waxuñu dëgg ak yeneen ak yeneen yoo xam ne rapport bi sulli na ko moom Ismaël Madior li mu wax mais bi ñuy topp Khalifa Abakar Sall qui était maire de la ville de Dakar Khalifa Abakar Sall mi nga xam ne association des maires des les maires francophones moom ci boppam amoon na ci cër am ci mhm. kaddu mhm. am ci ndomba tànk lu rëy Khalifa Abakar Sall mi nga xamante ne ba Sénégal de Sénégal ba tey politique gu réew mi jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf passant par Ablaye Wade ba ci Macky Sall mu ngi ci nekk acteur am solo loolu di un homme d'état boo xamante ne kenn mënu ko bañ a loolu ndax formation bi mu am ci PS la. bu fekkente ne kooku la ñu war a mën a jël loqati ko yóbbu ko ci yoon ñàkkee ko teggin taf-tafee mbiram dal di koy génnee droit bi nga xam ne amoon na ko pour bokk ci ay élection parce que loolu moo nekkoon seen objectif xanaa Karim euh, ñoom ñooñu ñu tudd muy daas yooyu ak ñooñu xanaa ñooñu ñoo ëpp ñoo ëpp dayoo xanaa ñoo ñoo ëpp njëriñ ci réew mi ku mel ne Khalifa Ababacar Sall mais ñooñu ñu tudd li ñi Ismaïla Madior Fall wax xanaa ñu ñoo ëpp toog xanaa ñu ñu ëpp solo xanaa ñooñu ñu ëpp njariñ xanaa ñoo gën a yàgg liggéeyal Sénégal ko ku mel ne Karim Wade Karim Wade bu dul dara tamit portefeuille yi mu yoroon en tant que ministre yu bare bari la mais Karim lu mu dee dee dee dee euh, li mu coordonné ci ay plan tàkkal ak yooyu ñëpp fi lañ fekk gis nañ ko te moment boobu am na lu tuuti lu mu saafara woon kon Ismaïla Madior Fall loolu mu wax nekkul wax yoo xam te ñun daañ ci attardé wu di ci di ko jox benn crédit parce que moom ci jëmmi boppam joxul ay waxi boppam crédit moom moom Ismaïla Madior Fall nit dafa bokk ci ñi nga xam ne kooku waxam man du ma ci duma sama doom man sama doom bi gën a am un an kër ga bi gën a ndaw duma ko duma ndax waxi Ismaïla Madior Fall sama doom bi gën a nekk xale kër ga duma ko duma ndax waxi ñu mel ne moom mm-hmm. parce que Ismaël Madior Fall fi la taxaw dal di wax limi wax ci affaire de mandat ci mandat bi. Mhm. wax ci lu leer. wax sax de mom liko jaxal moy le fait que nit ñi di ci nekk di wax ak yoyu parce que y a rien à dire amul benn benn équivoque wala dara lu ñu war a. yegg gisee ba ba maanaam tey am nombre de cartes bo xamantene ñom buñ ko jaayee. Mhm. dinañ mëna porter candidature kii di président Macky Sall. wa loolu la mujjé wax. Mhm. xam nga yoon buñu bind manam lo xam ne dafa nekk ci constitution bi ñu bind ko mom constitution ci loolu lay jàngalé Sénégal bari na ay constitutionnalistes yu nekk ci mbedd mi réy seen làmmiñ di wax ak ñoo xamante ne ñu ko jàngale nekk fi waaye moom nañu génneel ci biir constitution boobu ban ponk ak ban point moo ci xamle ne ki mënta bokk te moom moo ne mënta bokk moom Ismaïla la mu njëkk wax la ñu gëm moom Ismaïla Ismaïla Madior Fall bu mu ñu dofloo bu mu ñu fontoo moom moo taxaw fii ne mënta bokk ba yàgg mu bëgg a waxaat le contraire bi mu njëkk wax ñun boobu lañ jàpp. alors léegi ki mënta bokk ndax constitution bi dafa prévoir ben porox ndoll boo xam ne nii bu fa jaaree J'ai ay carte constitution bi wala yoon dina ko permettre mu bokk. Mhm. est-ce que waxi jaayi carte amna ci constitution bu Sénégal. lolou mo jaaxal kon Ismaïla Fall waxi mhm. jaayi carte la ñu wax lolou waxi parti la. Mhm. une carte moom foko ko parti la ndax parti ay carte carte parti la ñu jaay donc. carte Pastef la carte APR wala carte xawma mm, nata nga askan wi parce que Sénégal y a trop de partis loolu sax mooy li war a njëkk lijjanti mais jaayi carte bu koy wax ci ku war a ñuy wax ay waxu candidature nga dikk dugal ci ay waxi carte ak yooyu loolu dafa mel ni yabel ak fanto doomu aadama yi laa yaakaar ne moo ko gën a animé moom. Mhm. wala amuser leen quoi mais ay jaayi carte ak yooyu vraiment moo tax ma ne la kooku waxam. li mu wax ci rapportu cour des comptes. Mhm. li mu wax ci rapport cour de comptes boobu wax na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci laal ay kilifa lañu. Euh, kenn du leen ñàkk teggin dañ koy lijjanti à l'amiable même premier ministre wax ju mel noonu la wax dama ne ñoom dañoo respecté kon ñi ànd ak ñoom di ay ministre ak i daas waaye ñàkki war ak ñàkki teggin ku mel ne Karim Wade mi fi nekkoon Khalifa Bakar Sall ñi nga xam ne àtte nañ leen ba àtte lu définitif ci ñoom ba tey xañ leen lu jëm ci seen i ak ak yelleef ci bokk ci ay élection Sénégal moo wurta mën a nekk tey benn dëkk boo xamante ni Macky Sall mi ko jiite ak ñi mu àndal dañuy jël yoon di ko jëfandikoo nu mu leen neexee di tere bokk nit ci ay nit ci ay élection leg leg ñu jël ko jaaree ko ci ay parrainage ak ay affaire yu kenn xamul lan la loolu nag moo war a dakk dama ne rapport Cour des comptes bi ñi nga xam ne laal nañ ci ñooñu li ñu teg Karim Wade li ñu teg Khalifa Sall lu ko gën a garaaw lañ mérité. parce que ñii dañu wax ne dañu lekk benn alal yoo xam ne dafa nekkoon quelque part waaye ñii nag dañu jël yelwaan yi Sénégal yi yelwaan dajale ko yóbbu ko pare jox leen ko ci wóolu leen naam ah, pour te dire que sénégalais yi mbay wax dëgg yàlla gore nañ lu ñu mën ak Macky Sall parce que à chaque fois bu amee lu am lu doy waar ñu regrouper autour de l' essentiel jël ay koppar dajale ko ba mu bari yóbbu ko jox ko Macky Sall c'est-à-dire du Macky Sall lañ ko jox may ko ko wala dara de mais dañu jël affaire yi jox leen ko ñu jël xoolal tey ko mel ne la la l'ancien maire de Yoff. mais foofu est muy muy Diouf Sarr mais mi ngi assemblée di Galeyaabe ñoom ñëpp rapport bi da leen a concerné. la leen dal ma ma ma ma ma pare jox la la leen li li dal Karim Wade dal Khalifa Sall. Mhm. ni ñu leen attee nu ko yées nu ko raw la ñu leen war a attee ñoom.

ña fa demoon toog di wax ak Macky Sall man ci les respecte beaucoup wóolu naa leen aw wuma ci sen sen sen crédibilité ah. parce que xam naa bu ñu Amadou Ba aussi duñ ko rayal digëm loolu la japp loolu moy lima japp parce que man damay rafet jot ci nit ba kéro ngay poser lu tax may jël euh, sa ki contraire bi mais lima la mëna xamal moy rapport bu fekkente ni cim réew dafa def ben jukki dal di génné limuy génné mais loolu lan motax mbay ñu wara mëna jël ay nit boole len nan dañ ci waxtaan ak ñom rapport lan lañ ci waxtaan lenn rek la ñu waroon def jël rapport bi jébbal ko yoon dat ko ne lañ bët la c'est-à-dire enquête la boo xam ne dafa am fu mu toll wéyal leen enquête boobu képp ku ci laal ngeen indi ko ci kanamu yoon atté ko waaye lu ñu war a mën a toog di convoquer ay nit ay palais ay primature loolu lu ñuy wax pour man amul ci ay rapport ak lu ñuy waxtaan muy muy ñoom xawma suñu milliards du res ak ñeneen amul kenn kuñ ci war a mënoo di waxtaan ak yow dara man loolu mooy li ma gëm

boo xam ne ministre bobu lu jiitu muy nekk ministre wala député yéen a dëkkoon yàgg moom nga xam ko dembu xam ko tay gis ni mu daan dundee dembu gis ni muy dundé tay koku bu fekkente ne yorna deureum dërëm bu mu mën a séddale xanaa alal bu gaawee juddu ba rafetul olof da koy wax. et que bo yoree alal jo xamné da nga melni ku tim sa waay néegu xaliss bo xamné ku ñew ngay jël di sànni de gauche à droite c'est parce que liggéey wuloko parce que alal ci xol la sax boo ko liggéey deug deug dëgg doo ko defee nen ni kon et puis pour pour pour confirmer li ngay wax fi lañu ñu gis benn directeur poste bo xamné dafa dem ba élection jot mu def lu gëna lu gëna lu gëna lèr leer jël oto yi nga xamné ne ay oto poste la yóbbu ko dem diko diko diko ko campagne yi gis nañ ko fi ñun ñëpp té service yu bëree bëree bëree bëri bëri bi élection yi passé ñëwé auto yi nga xamné ñom directeur yak ak yi dañoo fokk auto yi yóbbu ko di campagne lu garaaw la waaye ñu ci bëree bëri ci ñom laa la ne pour nga gëm ne alal ji ñu du sen alal alal yi Sénégal la xam nga leen démb xam leen tey bi ñu leen falee ministre wala député léegi wala directeur yàggul mais directeur kay xanaa du fayee ko milliard chaque weer dama ne am na ñoo xam ne li ñuy séddale li ñuy séddale fii Sénégal di ko saax-saaxee loolu heures yi nga xam ne ay professionnel lañ Sadio Mané sax def ki nga xam ne dañ koy fay semaine bu nekk te muy encaissé ay millions chaque semaine ma ne la am na ñoo xam ne la ñuy saax-saaxee boo demee ca Portugal Cristiano Ronaldo sax def Ronaldo Ronaldo Ronaldo sax def Ronaldo sax def am na ñoo xam ne la ñuy saax-saaxee fii Sénégal semaine bu nekk weer wu nekk di dajale ci nit ñi ay gala yaabeeg ay nangam te xam nga ñun ay Sénégal la ñun nous ne sommes pas bu ñu yoree xaalis rek neex a xam waaye nag alal boo ko liggéeyul saax-saaxee ji day yomb donc nag bu fekkente ne ñoom dañoo jël alal Sénégal te nag Macky Sall moom loolu yoonam nekku ci mooy li ngay wax nii cest à moom faalewul ku jël alalu Sénégal campagne ko ku jël alalu Sénégal politique ko la ci yemale xam nga la moo ko amal njariñ politique ba nga koy politiqueal nga ut nga jël nga nga nga amal ko ndam moom na am ndam rek parce que moom moo taxaw fii wax ne ku ci perte localité mag yow la ñun ñëpp dégg nañ ko fii la taxaw wax mhm. ku ci perte localité mag yow la boobu xëccoo bi tar na. yi ay élection la ci ay maire ak ay nangam ñoom bañ nañ ko sax ba ñu demee bay def seen investiture ci côté local euh, ci côté législative lu compliqué woon loo xam ne nii il a fallu moom dugal ci loxoom di bàyyiloo ay nit di kii ba ci local noonu la ko defee. Mhm. demal lu mel ne Kaolack. diggante ay Mariama Sarr ak ñoom Modou Ndiaye Rahma ak ña fa nekk dem na sax moom bay jël xalimay boppam di jël ku ko neex naan ko demal nga laa jël ma dëkk sàngam ba pare daal di menacé daal ne ku ci perte fi nga nekk ma ak yow. def na ko mhm. fii. Mhm. kon Macky Sall moomu ci jëmmi boppam moo njëkk a joxe feu vert ci ñi mu àndal xamal leen ne leen man dara ñoruma ci ay transparence ak nangam nangam li ma intéressé mooy na ngeen def le tout pour gagner ay élection li ma intéressé mooy na ngeen def le tout ba bépp leader boo xamante ni. Parrain, pour tenir ma tête wala dem ci ay élection indil ma jafé jafé mais ngeen rendi ko politiquement mu dem ñu ko armée resul ko ba mu bokk. loolu lañu nek loolu lañ def ci Khalifa Sall mom lañ def ci Karim wad mom lañ nek ci def ci Sonko peut-être nañ peut-être parce que gars yi duñ gaaw